une institution de notre pays qui parle avec ses concitoyens C'est ce que rafetlu muy loo chaque année euh, une institution le président la présidence de la république parle avec ses ses ses ses concitoyens mais li ci biir amul lu parce que dafa am lu ëpp solo mooy nga respecter say nawle nawlante euh, Sénégal doomu Sénégal nous méritons loolu ndax li leen privé le jour du 31 décembre monopoliser toute la presse sénégalaise autour de lui. Moi, je pensais vilain. Depuis deux ans, ils sont en train de le faire. Parce qu'autour de lui, il n'y a que des hommes de presse. ñu que ses communicants ñoo nekk ci wetam te li digal éliminer les plus plateaux de télévision après le discours au Sénégal Ce n'est pas la démocratie veux récupérer les télévisions la presse au palais tenir l'une pour deux heures de temps après nous ñi dem Soit de faire un débat suivi après il n'y aura pas de sens Les Sénégal ne peuvent pas en, venir à leur fin Quand nous ñun dañ Japonais, ce c'est pas respectueux Il y a un groupe de presse aussi ñu avons ne pacte pour nous signé ak c'est très important que nous am droit à les donner de l'information euh, si ce qui est de droit il a parlé avec la nation c'est fini son point de presse nous aussi, la population sénégalaise, avons le droit à des plateaux avec d'autres acteurs politiques pour en débattre avec les sénégalais mais bu que que privé pour un seul homme qu'on respecte beaucoup le président de la République donc dans tout ça nous y a un lobby qu'il faut que sénégalais reviennent un peu sur terre surtout nos acteurs politiques de la presse nous ñu nous le courage d'affronter la réalité pouvoir les dire, mais nous restons sénégalais entiers. Oui ben si si déclaration vous bu ngeen euh, ce qui a été un peu honteux et désolant sur nos confrères sénégalais journalistes il faut qu'on bi question de mandat c'est-à-dire privilégié le président qu'il a droit à être candidat à lui poser des questions est-ce que di un intellectuel ne doit pas poser cette question est-ce que di candidat est-ce que war nga présenté ça veut dire que tous ces journalistes qui étaient là n'ont pas le courage de dire au président euh, élection yi nga organisée en 2024 vu que la constitution t'a déjà éliminé c'est ça qui devait être les questions que la presse devait poser au président de la République pas à lui dire est-ce que tu nga un candidat parce que non ne c'est la presse qui a fait une erreur excusez-moi parce que nous ñoo nekkal askan bi di poser les questions xam la constitution dit que nul ne peut faire deux mandats consécutifs au-delà des 5 ans ou 7 ans que seulement c'est des durées de mandat et une durée ne peut pas avoir un privilège sur le mot consécutif qui est déjà mis en avant. on est insatisfait parce que dañ le Japon, on a été. bi su waxtan pour wax ak rewum euh, amone aspect yo xamanteni fa lañ ko don xaar ndax ñëw na def déclaration wax li mu bëgg ak li mu na mu def ak équipe am ak li mu def ñu gis na am na ay manquement yu bëri si at yi ñu génn euh, bu ñu jëlee benn domaine maanaam domaine de l' agriculture euh, excusez-moi de de l' agriculture surtout si semence problème agriculture bi euh, arachide bi campagne arachidière bi mu wax ci ay wax yoo xamante ni man en tant que sénégalais de l' extérieur ma xool ne aussi ak sénégalais yi nu ñuy dundee fii rafetlu wuñu ko ndax balaa ñuy mën a wax ne baykat bi dafa war a kontaan si am na ku ñëw jënd à un certain prix li mu bay ba tey ñu ngi ñu ngi instauré que euh, les étrangers ñëw di jël suñu ressources di ko yóbbu alors que ñun dañu jàpp ne euh, Sénégal pour mu mën a nekk un pays développé wala mu nekk en voie de développement il faut d'abord ñu commencer di dundee li ñuy bayee kon donc foofu dañu waroon fexe ba politique bu ñu def moy lepp lo xamanteni baykat bi mu ngi koy def jëm ci gerte gi jëm ci yenen état du Sénégal ak sénégalais yi meuna a ba ñu koy consommer en premier li dess ñu soko jaay ci bitim réew. léegi loolu nak ñom seen politique yu baxul mo waral tay ji baykat bi day nek en difficulté pour meuna survivre motax su gisee prix bo xamanteni mom meuna ci jot tay tay da koy jël pour meuna continuer liggéeyam pour dund ak njabootam mooy tax ñoom ils ont failli à leur mission parce que baykat bi war nañ mëna a buñ ko joxé jiw mu jaay ñu préparer l'achat de ce qu'il a euh, semé ce qu'il a récolté ñu jënd ko jox ko l'entreprise nationale muy la Sonacos ba mën ko défar ba sénégalais yi mën di utiliser leurs produits à des prix bas su ko defee consommer local bi nek lo xamanteni dañ koy mëna jëriñu mais japp naané ne politique bu baxul mo waral loolu.

Il am ay charte ak normes yu war a des voitures euh, vieilles de 60 ans waruñu mën a passer une visite technique des voitures yu ñëw même pas 5 ans ñu leen di pas des visite technique. et toujours bu ñu ñëwee ci cadre boobu mooy le mal fonctionnement de nos administrations rawatina euh, fi nga xamante ni fa la ñuy visite technique c'est des choses yoo xamante ça c'est du domaine de l'État de de veiller à ces choses là pour que tey jii ñu a am des voitures yu décentes yoo xamante ni ñu mën a circuler ci dëkk bi mais nag ñu yi les chauffeurs. il faut que ñu xam ne yabuñu ay mala mala sax dafa am àq ak yelleef boo ko war a jox rawatina ak doomu aadama sax il faut que ñu xam ne on doit respecter l'être humain ñuy dawal di joxe précédence maanaam mooy di xam ki jiitu ki war a topp topp ci suñ ko defee ak respecter aussi euh, limite de de vélocité yi nga xam vélocité yi nga xamante ni moom la ñuy instauré si tali yi bu ñu ko defee yaakaar naa ne dinañ mën a soppi lu bëri ci accident yi li des nag ndogalu suñu borom la su amee ñu mën ko nangu mais d'abord il faut que ñu war suñu bopp ci loolu. benen bi nga wax moy jëm ci le respect des droits sur marche yi ak manifestation yi euh, bu ñu fàtteekee moom en tant que président bi mi nek opposition euh, lépp lo xamanteni droit de marche daf ko amone dañ ko ko yombalalon ndax maître Abdoulaye Wade dafa mës wax né ba def ko ci constitution sénégalaise bi euh, képp ko xamanteni da nga am lo nakari am na noo ko mën a ñaxtuwee te dañ la koy nangul donc da nga wara yeglu waro xam jox la autorisation ci dois seulement avertir l'autorité ne ko bés sangam bëgg nañ def une manifestation pacifique ñu encadrer la nga def li nga bëgg def mais dañu sétlu né mom bi mu ñëwé ci réew ba légui yoy yëpp daf ko éliminer mu ñu japp né ñu ngi dund une dictature rampante au Sénégal parce que su féké né tout ce qui est de droit à un citoyen waratugul nek un droit day nek lo xamanteni da fay ñaan pour mën ko am kon réew moom war nañ xolaat ay doxalinam ndax tay bo xolé bu ñu bëggee def manifestation le préfet n'autorise pas ou parfois m'autorise selon nous, nous arrangé Ce n'est pas un état de droit. Donc aussi, on n'a jamais interdit une marche sur le régime de Maître Ablawad à des Sénégalais ou une manifestation. Donc je pense que sur ça, euh, ce régime actuel, euh, d'exemple, exemples pour les Sénégalais, deux exemples aussi pour nous, deux exemples aussi pour le président de la République. les Sénégalais ont confiance sur lui, bah 58% selon nous, nous ce sont des résultats truqués, que ne pas des élections fiables. Mais selon nous, nous organisé, nous avons arrangé, ils ont su donner ces résultats et nous avons géré avec les Sénégalais. Mais quand nous Sénégalais, respect dialogue national je pense que képp kuy œuvre que parti politique si on la un dañuy dialogue national pour le bien du Sénégal donc koy applaudir mais si un contexte ak un anam la ñuy dialogue boobu ñu wax tuddee dialogue Si on ko wax dialogue national on dialogue politique selon avec ses partenaires politiques ils m'a arrangé parce que dans le dialogue national je pense que dans le domaine, il y a d'autres acteurs de la société sénégalaise qui ont dit participer ba nga xamante aujourd'hui tey ji intérêt réew mi mooy tax mooy tax ñu nekk ci mais li ñu gis ñun dialogue politique avec ses partenaires politiques pour ñu mën a teg ay lobby yoo xamante ni dina leen permettre ñu bëgg def Sénégal monopoliser ko mu nekk état bo xamanteni waxuma na dictature mais monarchie la ñu jëm avec ce régime buñ deful ndank ndax tay ñi ko wër ñëpp ak ñi nara a ak ses alliés le fait de démocratiser nos institutions le fait de démocratiser nos élections taxu leen jóg. Ils veulent se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. je pense que euh, les Sénégalais ñu ngi pas ndax tey mënoo dialogue national ou dialogue politique le parti d'opposition numéro un au Sénégal c'est le PDS parce que si nous ñu non on ne nous a pas appelé il ne faut pas dire que dañ ñu woo euh, ndax boo nous dee woo xam nga boo wootee dafa am nu ñuy woowee ak nu ñuy si ñun dafa tànn ñaari nit sans nous consulter c'est ça déjà c'est pas respectueux parce que parti bu toll ni parti démocratique sénégalais am leader Maître Abdoulaye am un candidat le frère président Karim Wade am des dignitaires am des responsables des hauts responsables am des jeunes compétents mënoo tànnal ñaari nit dugal ci dialogue boo xamante ñun jàpp nañ ne njëriñu Sénégal taxu ko te ñun doo saisir laaj ñu ñen ñoo li ñu yónni ndax ñun ñoo a ay nit waroo ñu tànnal ay nit donc je pense que si euh, bu waxee daf ñu woo yéen war ngeen du du lu raisonnable. ñun amuñu lu ñuy nëbb si c'est l'intérêt national moo ñu tax a jóg ci loolu la PDS mës œuvrer dañ ciy taxaw mais il dañ gis ne du du njëriñu réew mi njëriñu benn lobby la bu fi nekk bàyyi la jeunesse ñu nekk sans liggéey bàyyi la santé bàyyi xiif yi bàyyi social bàyyi inondation bi les installations bàyyi le dem jël ben lobby de politiciens, dugal leen si ben lobby pour tout le monde, pour nous nopi parce que le dialogue coûte hier ma gis ci presse bi coûte 10 millions de de francs CFA aux Sénégalais par jour ce comité de dialogue national à quoi ça sert alors que pour faire dialogue il y a les acteurs essentiels yo mën nga waxtaan ak ñom waxtaan ak le PDS waxtaan ak d'autres partis politiques yo sont c'est des partis qui représentent le peuple sénégalais Le secteur privé bi nga xamante des daf fi di investir dans ce pays nga woo leen ñu tok wax d'une manière sérieuse ce fait ne lolu moo de faire le mais do def lobby toog ci un bureau def li len neex ñew na dañuy dialogue national ñun dañ un ne lobby national lañuy ñuy woote mais du dialogue national. ñu wax euh, dialogue national euh, di laisser en rade euh, les Sénégalais de la diaspora parce qu'on est des millions de Sénégalais aussi dans le monde n'oublions pas ça si Sénégal là, ñu bokk et l'État li muy fàtte mooy te et c'est le, euh, un jeu malsain que l'État du Sénégal fait avec les Sénégalais. Moi, je ne pas dire la réalité aux Sénégalais. De nous Sénégalais, l'un arrangé et ça, une La diaspora contribue et chaque fois, nous avons un bilan au niveau de l'Assemblée, au niveau de la déclaration de fin d'année, à ça, La diaspora sénégalaise contribue plus de 1300 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise par an. Selon vous, un État dina am mu nekk un des premiers bailleurs pour financier pour un pays au-delà de banque mondiale des banques privées qui sur des projets de 20 milliards tu as une banque une banque de sont tes propres fils qui sont dans le monde di dugal et comment les gérer lolou may won vous tiouné ak sen gérer ces ressources là pour nous Combien d'emplois ont été créés, ont été créés excusez par la diaspora, sur monnaie de transfert, sur des entreprises créées par les Sénégalais de l'extérieur, sur beaucoup d'autres choses. Arriver à 1300 milliards, c'est presque les un tiers du budget national d'un pays comme le Sénégal. Et on n'arrive pas à tirer l'intérêt, le profit général pour ce pays. C'est parce qu'on n'a pas de bons leaders. Nous, par des mots sénégalais, nous, on a un projet de développement avec les Sénégalais de la diaspora. Si pourquoi pas créer une banque des Sénégal de la diaspora que avons sous nos fonds de financer ces projets et hein, l'état du Sénégal daf poser pour développer ces pays. les Sénégalais de la diaspora ont beaucoup contribué, ils ont beaucoup fait et ont respecté beaucoup l'administration sénégalaise. C'est l'État qui les a jamais reconnus et qui les a jamais donné de respect que nous mérité Nous sommes les premiers bailleurs premier de l'État du Sénégal ce que l'État a gëmee parce qu'il faut valoriser li c'est-à-dire il faut que l'État ramène et ay première force les fils de son pays dans tous les domaines dans tous les domaines c'est les fils de son pays qui ont développé. développer aucun partenaire n'est pour développer le Sénégal Nous l'Union pour profit d'intérêt ku investir muy banque muy dara am na intérêt bu ce sont des lobbies internationaux dañuy ñëw pour investir ba si doon pétrole bi yëpp pour jël seen bénéfice dem alors que si les Sénégalais investissent dans ce pays l'argent restera dans ce pays et de beaucoup d'emplois seront créés bu dee nag comme li nga wax ne ñun euh, est ce que def les premiers pas mais d'abord, un état fort un état qui qui veille sur l'intérêt de son pays dafa war xam exactement 1300 milliards bu ñu demee ba tudd ko xam nañu ñun ba njëriñ ak ban doole kon moo ñu war a fekk si su liggéey taxé dans des cadres nous ñu Sénégal ñu koy ci fonds lebi bitim banque partenaire économique te doomu réew mi ngeen ñew leen su lan Nous bëgg nous proposer ñun ñu wax suñu projet wax suñu proposition d'abord mais créer une banque nationale des Sénégal de la diaspora pourquoi pas mais les techniciens de la banque mën nous ko étudier ñu def su les sénégalais de la diaspora ils xam ban cible ak ban circuit ils envoient à seen nit bu nekké di njortu dara bañ la wax fi mu jëm té yow nga xam li dëgg da nga koy téla wax mu xam fiñ koy xaar. ñom posé wuñ ko non les gens n'ont pas posé comme ça les gens ont dit de tourner de lui donner couteau à double tranchant à lui-même de décider ce qu'il va faire en 2024 c'est ça la réalité et la triste réalité toutes les questions dañ koy jox décider alors que il doit organiser les élections il fait pas c'est ça le problème il faut que nit ñi ko mu jeex eh, eh, eh, c'est un acteur politique c'est quelqu'un qui veut gouverner c'est quelqu'un qui veut être toujours c'est quelqu'un qui veut être c'est-à-dire suñ ko joxee la possibilité il va le faire. raison pour laquelle tu me donnes raison parce qu'on on lui en train de donner le couteau à double tranchant ñun ñoko jox ñoo fa nekk diko est-ce que da ngay nekk candidat ñun ñoy problème bi c'est pas lui c'est nous les Sénégalais c'est nous la presse bi nga moy mooy ak mom et cette presse là que vous m'excusez ñi nga xamante ñoo demoon ak mom qui devait parler au nom du peuple sénégalais am ñu commencé soulever question bi mais dañ ko xaw a non avec tout le respect qu'on doit au chef de l'État avec tout le respect parce que c'est notre président de la République mais suñu jàkkaarloo pour wax l'intérêt national des 15 millions de Sénégalais nañu wax suñu constitution moy le cœur de la du Sénégal Momo moo ñuy def ñun ñep et la constitution l'interdit de faire un troisième mandat nul ne peut faire deux mandats consécutifs c'est fini c'est-à-dire consécutif après la durée arrive man ne ko accuser que day tendre ou de ne pas tendre li nek ci mom mom moo ko xam mais man limay wax ak lima gëm moy ma constitution sama constitution wax may sakku nak képp kuy presse di jakarlo mom nga bañ ko waxati est-ce que di nga nek meuno nek wax ji il faut pas que ñu koy wax est-ce que di nga ñu koy possibilité de force pour pouvoir être et c'est pas ça qu'on veut faire et c'est pas ça qu'on veut entendre il ne doit pas être il ne doit même pas prétendre parce que le mot consécutif bu len ko faté parce que li sénégalais yi toujours dama koy dégg ci débat yi 5 ans Ce ans c'est pas la durée qui est importante dans ça c'est le mot consécutif qui est dans la Constitution qui dit que nul ne peut faire deux mandats consécutifs. C'est fini. Et je pense que c'est un débat clos. Moi, je suis fi parce que je euh, suis euh, je pense que ce que toujours que sénégalais l'âge, qui nous dënk seen réew jox ko tous les pouvoirs ana Karim Wad. je pense que la meilleure question on doit les poser au chef de l'État bien sûr parce que je pense que bu faites da nga jël un Sénégalais de tous ses droits que tu lui prives de tous ses droits civiques et politiques donc pour ñu ko bëggé lacc je pense que ñun suñu côté am ñu xam mais qui nga xamante moi, de la nation avec tous les droits et tous les honneurs mon war na ko mën a Sénégalais comme ni muy leeralee si yenn non man du ma ne bàyyi du ma ne téye mais xam nga dafa am lu jiitu Moi, le coma, le processus de Karim Wade jusqu'à être exilé pour Qatar le lieu sénégalais warna war nañu ko ko laaj moom parce que su fekkee euh, d'autres personnes ont été graciées récemment D'autres leaders politiques, ils sont dans ce pays en train de circuler. Vrai ou faux Donc, on exile un, un, net, un Sénégalais, euh, dugal ko ci avion paqueté ko génne ko privé de tous ses droits qu'on donc man mënu ma yow mënoo ko je pense que la presse sénégalaise devrait avoir le courage de poser directement quand ils sont devant le président de la République ou devant euh, des responsables de ce pays de les poser les questions de Karim Wade réellement ñoom la mais ñun xamné mo ne mu ngi et demain fera jour et la vérité finira par toujours vaincre il sera là et il va être président inshallah du Sénégal. ñu ngi sant ñep di gërëm ñep lepp lu fi wax aussi euh, su dëngee ñu ngi siy jégalu du yéene bi su baaxee aussi matu suñu matu matu suñu borom la. Et c'est juste qu'on veut toujours vouloir bien faire pour le bien de la communauté sénégalaise, de donner nos opinions, de donner nos points de vue sur des actualités. Bi nga xamanteni ñun ñep ñoko bok bokk muy Sénégal bi ñu bok muy ñi jité ak ñi wul ndax aussi mom wax na ko ci déclaration ñu bok ay idée ñun ñep loolu moo motax opposition am si idée yi bokkoon rek je pense que du neex ci réew mi euh, tey wax na ñun gisee nañu nenen am ñu droit wax ni lañu ñu am ñu droit wax ni lañu sentiré sentir am ñu droit wax ni dafa wara jox encore ak réew mi il est privilégié sur 15 millions de Sénégalais il a presque de plus de 8 milliards de fonds politiques 8 milliards de caisses noires véhicules blindés euh, forces de l'ordre institutions décrets tout logé au palais Il a tout sur 16 millions de Sénégalais tous les pouvoirs donc il doit remercier le bon Dieu remercier ses parents mais aussi remercier les 15 millions de Sénégalais